fii daal daanaka tabax bi fee yàgg kii ay nit guddi gi daanaka kenn du ñemee génn dang am na ñoo xam dañ lañuy dàq ba seen bundu kër keroog am na benn jàng bu ñu fa dàq jëm ba seen bundu mu daanu dañ fa yàgg góor moom na mu ñëw tey dugg si bi tabax bi dama xëy war a sama doom ji marché ma ma ne ko Mame Bousso dawal kër ga nga jox ma sama xaalis bi si peñe ba dama koo fàtte bu mu dawee bay ñëw nag sa tasanteeg waa ji mis ko muy daw ba daanu ma ne ko asasur xeer bi mu ne daa benn waay ju may dàq mu si biir tabax bi saru mbaxane ma nekk ko mbaxane mu ne ma waaw si laa daw nag dem wóob Jóob Jóob bu mu ñëwee si la woo directement police sëñ ñëw jàpp ko. ko waaye nee na daa bëggoon bu ko dàq jee ba mu dem mu dugg si biir tabax bi fol ay feeraay yooyu loolu la wax. waa am na ku fi jàppoon fii nii surtout clinique bi am na benn xale bi mu fi mësoon a jàpp. déedéet dee gaatuñ si dara ñu ngi sàkk ñu am sécurité bu baax a baax a baax ñu jàppale ñu si na tabax yi yegguti moom daa bari su Touba lool te naa ñu mel ni donc sëriñ yi guddi gi naa kenn du ñemee génn ñu si sàkku ndimbal bu baax. noo tudd. Maam Moussa. da ngay jàng mooy jàngee. laa tudd. waaye Modou Diop Diaby lañ ma gën a xamee. Uh-huh. moo nekk bonne volonté de sécurité ak euh, nekk ci dëkk bu sell bi daal di surveiller lépp lu jëm ci wàllu kaaraange. Uh-huh. Uh-huh. waaw loolu dañ ciy njëkk a tàmbale ci la njëkkoon rek te lu baree bari ñu koy wax te yi ñuy wax yépp demewul noonu. Euh, yu bëree bëri demewul noonu yaakaar naa benn cas moo ci jotoon am muy kooku ñuy wax Serigne Fallou Ba mais tey moom yàlla dogal na euh, dama jaar fii di dem commissariat jànnatu automatiquement ci lañ ma woo wax ma ni ma dafa am benn xale boo xam ni dafa am kenn ku nekkoon ci biir biiri tabax doon dàq xale bi xale bi nag daa daw ba jub yaayam ba daanu après ci la ko yaayam fop ni ko ana ki la doon dàq mu ne ko mi ngi ci biir bâtiment bi après ci lañ ñu woo ak euh, ñenn ci ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi ñu jàpp ñu jàpp waa jooju bi ñu ko jàppee tam bon population bi naroon nañ ko rey ndax mbooloo mi bari woon na waaye ñun li ci suñu taxawaay rek moo ñu sobe bakkanam euh, ba kenn du ko rey ndax xamuñu wér na wala wérut moo tax euh, fi saa rek dama daal di woo ki nga xam ne mooy commissaire bu police bu Touba ginnaaw ci biir secteur am la nekk fi saa si matul deux minutes mu ñëw euh, ñu jël waa ji jébal ko jébal ko police bu Touba li ci des nag mooy ñun liñ ci man rek mooy jàpp ba police teg ko loxo. boo ko defee la ca war ci enquête est-ce que wér na wala wérul nag police moo koy def. waaw conseil yi moom yàgg naa ko wax depuis des années maa ngi wax conseil yi am na ci yoo xam ne ñu ngi koy jëfee conseil yi mooy Touba dafa rëy commissariat bi dafa rëy jànnatu rëy na lool ba pare euh, tuuti na ci Touba ni ma koy waxee rëy na ci tabax bi mais tuuti na ci Touba ci wàllu population gendarmerie itam vraiment ñi ngi def lañu war a def di leen remercier ñoom police di leen remercier ak waa gendarmerie ci seen taxawaay ci wàllu sécurité. boobu moom ñi ngi ci mooy première bi ci des mooy ñi nga xam ne nag ñoom ñooy victimes yi ñooy ñun population bi population bi ñoo wan a gën a wu def nii nga xam ne ni la soxna si def am numéro police am numéro gendarmerie am suñuy numéro ba lépp loo xam ne xew na lu mel ni automatiquement ñu mën a def intervention ba gaaw ci intervention loolu tam li koy waral mooy gën a dolli commissariat yi nekk Touba mais gën a dolli euh, post gendarmerie yi nekk Touba mais gën a dolli tamit collaboration bi ci chef de ak population Touba xam naa bu ñu ko defee daal teyit ñuy teey ci yu mel ni bu amee moo boo gisee ñu ñu koy wax may gaaw di dem mooy damay bañ rek ñu tuumaal nit rey ko wala ñu gaañ ko wala loolu wérut waaye eh, lii daal mooy li nga xam ne mooy li am. bon li am fii moom ginnaaw jébbal nañ ko yoon xaj na yoon lim ci war a def dana ko gëstu bon bi ñu laajee xale bi daal nangu na loolu d'accord na loolu bi ñu laajee itam ki nga xam ne mooy yaayam nee da ko doon dàq parce que daf ko yónni woon effectivement waaj itam nangu na ni moo ko doon dàq. Euh, ci tabax bi la dàq na ko ba mu daanu waaye nee na jubluwul woon ci moom dara kon loolu rek la ñuy mën a gis ba jusqu'à la preuve contraire. xanaa insécurité bi rek. ak problème mu courant bi fii moom bu timis xasee ba jot doo ñemee génn day lëndam trop sax doo ñemee yónni sa doom yow sa sa jëmmi bopp sax doo ñemee génn pour dem bitig ba. xanaa gouvernement bi dimbali ñu si rek leeralal ñu mbedd yi. te dimbali ñu pour sécurité bi ndax benn jaboot ñementu la bàyyi sa doom mu génn sax toog sa buntu kër loolu yëpp problème la. ah ku sa njaboot génn comme li xew tay rek ndax kii mi ngi dem marché am lu mu fàtte këram daal di wax doomam na dem jëlili ko ko ci kër gi ñaari mbedd rek mu daal di génn ñu daal am ku koy dàq bëgg koo jàpp te bu koo jàppoon kenn xamul lu mu koy def ndax jamono ji léegi dafa naqari lu nekk lañ ñuy dégg aussi. barki dem rek ana benn femme bu dëkk fii kooku sax xaw naa mag tuuti benn xale bu góor daf ko dàq ji ba mu daanu seen buntu kër te loolu yëpp problème mu bâtiment bi ñu dendal la ndax fii la ñuy làqatu di def nag su dul noonu. ah xanaa seeni borom ñëw rek wax si ndax buñ ci mënta dëkk ñu jéem koo eggale ñu luyee ko wala ñu fatt ko ba xam ne kenn mënatu cee kenn du ci mën a dugg daal moo gën moo gën lii. ñun daal tiit nañ moom tiit nañ trop surtout man mi nga xam ne dama jàkkaarloo bâtiment bi tiit nañ trop te koñ bi mën naa tout tànk yi dañ fee bari kenn ñemeetul sax pour yónni sa doom mais wala sa doom génn dem jàngi kenn ñemeetu ko xam nga mënoo 24 heures sur 24 ngay tëj sa doom ta nekk il faut mu génn il faut mu dem butig ba jaxle nañ daal tiit nañ ñi ngi sàkku ndimbal daal ñu mën a dimbali ci wàllu sécurité ak leeralal ñu suñu mbedd yi guddi gi ndax saay-saay moom lëndëm la bëgg bëggul leer man maa ngi tudd Soda Soda Beye